أمتي الهادين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيي الجمع الكريم ونهنئ أحباب رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلول شهر الربيع chahri rabii albachariyati chahri milaadi xayri alxalqi sayidina muhammadin sal allahu alayhi wa sallam wa nuxayi assaada acdaa lajnati nadwati wa ala rasihim sayidi ahmad bukaar wa jamica mucaawinih kama nuxayi assaada almuxaadirin wa sayid rais aljalsa wa munasiqiha wa kaafata acdaa alqaaca almubaaraka ونشكر اللجنة على تشريفها لنا بهذا التكليف بإلقاء هذه المشاركة المتواضعة والتي تتمحور حول دراسة تحليلية موجزة للحكم التي جادت بها قريحة مولانا الشيخ أبي بكر المثنى المكرم بهذا اليوم العظيم أيها السادة والسيدات بعد قراءتنا لهذه الحكم النافعة والتي وصفها صاحبها بالقدسية أو بالإلهية ترأينا أن أن يكون الموضوع منحصرا في النقاط الآتية الأولى نبذة عن الشيخ أبي بكر المثنى ibni alxaaji abdullahi alkabir ثانيا وقفة مع مصطلحات الموضوع ثالثا أضواء على الحكمة في القرآن الكريم رابعا مكانة الحكم في التراث الصوفي خامسا وأخيرا الدراسة الموجزة حول هذه الحكم nuridu an nuida fi adhaani alixwati an alxikam sammaha saaxibuha binnafaxaati alqudusiya fi alxikam alilahiya wa qabla alxawdi fi hada alsharx kunna nawaddu an nuqaddima bi tacrifin muujazin li cheikh abi bakrin المثنى ونظرا لضيق الوقت ولأن الإخوة قد سبقونا في هذا المجال وتناولوا حياة هذا الرجل الفز وأطربوا مسامعنا بنفحاته وبمآثره وبآثاره الخالدة فلا نطيل عليكم في ذكر شيء من من سيرته العطرة ف نكتفي بالقول بأن هذه النفحات تمخضت عن عصارة هذه التربية الرائقة التي ذكر الشيخ أبو بكر نفسه بأن الشيخ إبراهيم هو الذي عني بها بإذن وبإشارة من والدهم الجليل الشيخ الحاج عبد الله فقد ولد الشيخ أبو بكر في كنف الولاية ونشأ في حجر الصلاح وتربى في أحضان العلم والمعرفة wa taraaraca fi riyaadi alqur'aani walxadiis nabata fi xamilati waalidihi cheikh alkaamil walmujahidi albaasil walcaarifi alwaasil cheikh cheikhi awaanihi di lbaaci altawil fi alcilmi wa fi tafsiri kitaabi illahi ala wajhi alxusuus wa cuniya bitarbiyatihi axuuhu abu isxaaq wa saqaahu min zulaali fuyuudihi wa xallaahu min jawaahiri culuumihi wa fuhuumihi maca maa manaxahu allahu tacaala min quwati alazima wa xiddati aldaka wa safaai alqalb wa surati alidrak wa umqi alfahm wa diqati almulaxaza al amr alladi adda ila shumuuxi binaihi alcilmiy wa bucdi gawrihi almacrifi wa sicati ufuqihi althaqaafi yaqulu binafsihi an hadihi altarbiya wa laa acuudu li dikri dalik fa aktafi bima dakarahu alsayid alrais cheikh ahmad bukaar wannaadir fi عنوان هذه النفحات يلاحظ فيها الألفاظ الأربعة النفحات والقدسية والحكم والإلهية والنفحات جمع نفحة وهي المرة من هبوب الريح وقد تطلق هذه تطلق هذه الكلمة على الخير وتطلق على على الشر fa nafxa fii fii majaali alsaati walxayri walnicmati hiya tafadulun wa takarrumun min xadrati llahi tabaraka wa taala ala abdin min cibaadihi bima yantaficu bihi wa yanfacu bihi gayrah wa ida utliqa fi majaali alchar fa yakunu anatan wa cadaaban wa niqmatan kama fi qawlihi taala wala in massathum nafhatun min adaabi rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin wa hada al ism al jalil raajacna kathiran min alkutub walkitaabat wa raayna anna kathiran min ulama altasawuf wa min ulama alislam sammaw kitaabatihim wa taalifihim binnafaxaat kannafaxaat alilahiya li cheikh kabir abi almaali wannafaxaat alaatira fi jamii alqiraat alashara almutawaatira li cheikh Mouhamed Xussam eh, sab sab sab sabi wannafaxaat alitriya fi siirati xayri albariya li nuuriddin atar addimashqi wannafaxaat alahmadiya waljawaahir alsamadaaniya li cheikh Xasan Rachid almashhuur bilmashhadi alxafaaji wannafaxaatu alchaadhuliya fi charxi alburda albusayriya wannafaxaat alxaliiliya lil imaam Ahmad Muhammad muhammad abu khalil wa nafahaatu alqudsiya fi raddi alimaamiya lil mufassir alkabir alcheikh al alusi wa min thumma taati hadihi alnafahaat والتي يمكن أن نطلق عليها بالنفكات بالنفحات البكرية التي تفضل بها شيخنا الشيخ محمد أبو بكر المثنى والقدسية maaxuudun min qadasa ash-shay'a aw qaddasa ash-shay'a taqdiisan ay nazzahahu amma yaliqu bihi amma laa yaliqu bihi wa hiya nisbatun li haadihi an-nafahaat ila hadrati llaahi tabaaraka wa ta'aala alladhii manna bihaa 'alaa ash-shaykh. wal xikam jam'u xikma wa kamaa 'arrafahaa ash-shaykh al-Buutii yaquul hiya majmuu'atu maqaati' min al-kalaam al-baliigh al-jaami' li awsai almaani bi aqalli alcibarat ka kulluha mustaxlasun min kitaabillahi taala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa hunaka taarifat mutaaddida wa mutanawia lissaada suufiya li alxikam walilahiya aydan nisbatun ila xadratillahi tabaraka wa taala xaysu yaqulu alcheikhu takiidan wa taqriran ala anna hadihi alxika alxikam minhatun ilahiya alham alhamahu llahu iyaha fa yaqulu ma huwa illa an nuudiya fi sirrihi bacda salaati alcasri yowma alithnain almuwaafiq li sabcata cashara min zilxijja caama alfin wa talaatimiatin wa xamsatin wa xamsiin an yaa aba bakrin uktub maa tumlihi calayka alxadra aw maa tumlihi calayka alxadra fa hada dalilun ala anna hadihi alxikam fi alxaqiqati xikamun ilahiyatun Eh, alhama biha xadratul qudsi ala cheikhina aljalil mbokk yi ñi ngi sant yàlla di julli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di nuyu mbooloo mi fi teewu yépp di nuyu suñ mbokki panélistes yi nga xam ne ñoom lañ bokkal taabal ji di sant yàlla tey gërëm laj na bi nga xam ne moo ñu boolewaat ci yiw bu bari bi ci ñu jéem looñu ci waraqa bu gàtt bi nga xam ne dañ ci bëgg waxtaane waxtaanee ci alxikam mooy xam-xam yu am njariñ yi nga xam ne yàlla mu ngi ko jaarale ci suñ sëriñ sëriñ Mbay Ñas radiyallahu anhu mu tuddee ko an nafaxaat al qudsiya lil xikam al ilahiya moom lañ wax léegi ci araab bi ne bu ñu xoolee gis nañ ne yàlla suñ boroom moo ko ko moo ko ko baaxee ni mu ko waxalee boppam te loolu du jombe ndax mi ngi yaroo ci keppaaru baayam jaar ci keppaaru magam Seydil Xaaji Ibrahim mooy cheikhul islaam màggee ci bii ab yi nga xam ne bii a xam-xam la bii a wilaayatu la bii a salaax la kon yàlla dafa def mu bokk ci góor yàlla yi nga xam ne biñ sellalee seen xol yi xeex ak seen mbakkan jublu seen boroom seen xol yi leer na set ba borom bi subhaanahu wa taala sotti ci ay leeram sotti ci xam-xamam boo xam ne danañ ko mën a yullil jaam yi pour mu jariñ leen nii la ko waxalee boppam ni dafa toog bis julli tàkkusaan ba pare am lu ko waxee ne ko dekkul li nga xam ne moom la péyab yàlla bi di saaye nga bind xikam yi nga xam ne moom da ci mën a jariñ nit ñi kon bu ñu xoolee xikam yooyu gannaaw muqaddima biñ ci def ci wone ne nim tuddee téere bi ñu bari jiitu nañ ko ci lu mel noonu waaye danañ sax seetlu ne moo xikam yooyu lu ci bari du askanewuñ ko péyeb yàlla bi parce que xikam dañ naan xikam xaliliya xikam itriya xikam aatira yu demee noonu mais moom xikamam yi def ko askane péyeb yàlla bi subhaanahu wa taala directement bu ñu ko xoolee nag ci jàngat danañ gis ne lu ama am solo la danañ gis ne lu foor lay ci li ñuy tuddee al adabul arab yi buñ ko méngaleeg xikam ci adabul arab yi ci usuur am yépp danañ gis ne xëy na xikam yooyu dañu nekkoon loo xam ne ñi ko jàng ñi ko ñi ko bind ci ay tajaarib lañ sukkandiku wala ñu sukkandiku ci ay xeltu waaye xikam yi moom yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko dotti ci xolab sëriñ bi mu dottil ñu ko mu doon ay njëriñ yu bari yoo xam ne bu ñu xoolee danañ gis ne mi ngi ci traité rek ci tënk ñetti ba ñeenti wàll yoo xam ne bu ñu ko xoolee dafa tënk dundu doomu aadama bi yépp bi ci njëkk mooy diggante boroom diggante nit ki ak boroomam danañ gis ne xikam yi am na yoo xam ne day wax ci diggante nit ki ak boroomam am ci yoo xam ne dafay wax ci diggante nit ki ak moroomam am ci yoo xam ne itam dafay yittewoo wax ak nit ki ci digganteem ak boppam ñeenteelu point bi buñ defee istixlaas danañ gis ne dafa jëm ci wàllu yar ak ci wàllu soobu jëm ci yàlla ak warigar yi nga xam ne moom la laaj ak formation bi nga xam ne moom la jaam bi soxla pour mën a rafetal ñetti diggante yooyu nga xam ne moom lañu wax bu ñu jàngee alquran suuratu suratul asri borom bi subhaanahu wa taala mi ngi wax ne wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilxaq wa tawasaw bisabr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu yàlla dafa ne giñ naa ci tàkkusaan wala ci jamono wala ci dund yonent bi ne nit ñëpp a perte ba mu des ki gëm yàlla loolu dafa jëm ci diggante nit teeg boromam wa amilu saalihaat dafa jëm ci diggante nit ki ak boromam ba tey ak ak boppam wa amilu saalihaat wa wa tawaasaw bi sabri dafa dem ci diggante nit ki ak moroomam ba tey buñ jàngee xadis euh, ittaqillaha xaytu ma kunt wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan danañ gis ne it boobu dafa jëm ci ñetti wàll yooyu ittaqillaha xaytu ma kunt ci diggante jaam bi ak boroomam wa atbii sayiata alxasanati tamxuha diggante jaam la ak boppam wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan diggante jaam bi la ak ay jaami moroomam ñu xool xikam yi nag gis ne am na baraatul istihlaal maanaam tàmbali bu rafet boo xam ne ku ko jàng rek xam ci li sëriñ bi jëm te loolu fànn la ci fununul balaaxa yi nga xam ne ku maîtriser làkku arab du du du du du ñàkk mukk suy bind wala suy wax mu tàmbalee lu mel noonu xikma bu njëkk bi mi ngi naan la tatruki taata li adami wujudi fiha wala yuctabaru illa ma kaana xaalisan ala lillahi diinu lxaalis wa ruyatu l ixlaas min an fi l mu ne bul bañ topp yàlla ndax yëg bi nga yëg ne munoo jotal ci ixlaas muy sellal bi mu laaj mu ne nanga xam ne jëf duñ ci considérer lu dul loo xam ne ka ko jëf daf ko jëf ci sellal mu ne mi ngi fàttali waxi suñ borom mi ne moom rek a jagoo diina ju sell joo xam ne dara du ci rax mu ne tey yëg ne yaa ngi sellal ci sa jëf dafa bokk ci ñàkk sellal nga xam ne sax suñ làmmiñ yi tuuti dana lott ci firi li nga xam ne mooy xikam yi ndax rëyaay gim rëy bu ñu ko jàngatee danañ gis ne doom aadama risalaam ci kaw suuf du dara lu mooy jaamu borom bi subhaanahu wa taala te jaamu borom bi subhaanahu wa taala du wér lu mooy ne ixlaas la àndal lu mooy ne yéene ba ko lal yàlla rek moom moo tax yooyu ay xikam yu bari ñëw nañ di sotti ci xaalab boobu beneen beneen bi mooy alaaqatul abdi bi rabbihi mi ngi wax laa tat alaaqatul abdi bi xayrihi mooy diggante jaam bi ak moroomam jaam yi mu loolu nag dañ ko xaaj ay xaaj mooy diggante jaam bi ak sëriñam diggante taalibe bi ak mbokki taaliba yi nga xam ne mbokki ruux lañ mbokk ay mbokk lañ ci yàlla ak diggante jaam bi ak mbokki dereetam ak ji diggante jaam bi ak ay mbokk yi nga xam ne mbokk ijtimaa yu ne lañ ay soci wàllu social moo leen boole diggante jaam bi ak sëriñam wax na ci ay xikam yu bari mu muxaalatatul akabir majaamiul xayri fil baatini wa zaahir bi muy wax ne jaxasoog nit yàlla yu mag yi dafa boole mbooleem yiw yiw bu nëbb ak yiw bu feeñ mu terate ci li ñuy tuddee as soxbatu fillah ak li mu am ci ay aadaab ak li mu am ci ay lawaasim nga xam ne boo jàngee téere yi nit yàlla yi da gis ne wax nañ ci lu bëree bari boo demee ci ruuxul adab bu Mawlaana Cheikh Ibrahim wax na lu bari ci alaaqa boobu nga xam ne moo boole taalibe bi ak sëriñam mu waxaale ci sax nag ne sëriñ bi am na ay mbir yoo xam ne moom moo ko war comme ni mu amee yu war taalibe bi mu wax ne ma maa aysara sidqal iraadati lawla imtihaanu shuyuuxi li muridihim mu ne nekk ku dëggu ci ànd bi nga ànd ak sa sëriñ doon na yomb bu du toon ne sëriñ yi mat sëriñ dañuy dañuy jàngat seen taalibe dañu koy nattu ba xam ndax dëggu na ci ànd bi mu ànd ak ñoom mu wax wax ju am solo mu ne ñu bari dañuy oote ne dañuy ànd ak seen sëriñ waaye néew nañuy jëriñu ci ànd bi ñu ànd ak seen sëriñ ngir réere gi ñu réere rek li nga xam ne mooy àtte diggante boobu diggante taalibe bi ak ay mbokki taalibeem wax na ci lu bëree bëri ay xikam yu bëri rot na ci mu ngi wax ne rubbama yuqtau almurid aw yacuuq an sayrihi li isaatihi al adaba maa baadi ixwaanihi min almuridin mu ne bëri na bu taalibe bi dogee walla sax mu am gàllankoor ci yoonam bi jëm ci yàlla te dara waralu ko lu mooy mu ñàkk rafetal àndam ak mbokki seen taalibeem yi wala mu ñàkkee leen teggin wala mu wàccee ci seen kaw ay lor noonu lañ demee di wax ci diggante jaam bi ak mbokki dereetam yi mu wax ne innama al uxuwatu bil mahabbati wa muwaafaqati al axwaal la mujarrad al ansaab fi l mu ne mbokk daal dëgg-dëgg mooy bëggan bi bëggante lal ak bi nga xam ne dëppoo ci ay xaal moo ko lal moo koy anime waaye du rek mbokk goo xam ne nettali ay askan rek la mu ci ay làmmiñ te duñu ko jëfe beneen alaaqa bi mooy diggante euh, nit ki ak boppam ak bakkanam bi nga xam ne moo nekk ci diggante ñaari mbaggam mi te yàlla wax ne wa si wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man wa qad xaaba man dassaha sëriñ bi rotal ci ay xikam yu bari am na bu mu wax ne anta li nafsika ma dumta tara laha xaqan wa anta lillahi maa gibta an xuquqiha wa man kaana lillahi kaana allahu lah mu ne yow yaa ngi nekk ngir sa bakkan feek yaa ngi gis ne sa bakkan am na ay xàq ci yow waaye yaa ngi nekk ñeel yàlla feek boo demee ba gisatoo ne sa bakkan bi am na xàq ci yow lu moy ne yàlla yàlla rek moo am ay xàq ci yow nga nekkal yàlla te ku nekkal yàlla yàlla nekkal ko noonu lañ ko toppee ba ci bu mujj bi mooy ak tarbiya wa suluk nga xam ne xikam yu bari rot na ci jàngalaat taalibe bi nu mu war a def ba formation rafet nu mu war a def ba aw yoon bi mu soobu jëm ci yàlla mën a doon yoon boo xam ne dina ko yéggale te loolu du sukkandiku ci dara lu mooy ci xam-xam boo xam ne dañ koy xam mu wér ñu jëfee ko mu dëppoog li alquran indi dëppoog li bàyyi wax ci al ilmu huwa al imaam mu ne awalul ilmi bi taallum wa wasatuhu bi tafahum wa man wa manfaatuhu al amal bi muqtadaa mu ne xam-xam mi ngi jëkkee ci jàng waaye digg commencement jàng la digg bi dégg li nga jàng la waaye njëriñam mooy nga jëfee li xam-xam boobu laaj mu tëjee nag wala boog ñu tëjee ci tasnif boobu ñu def ci ay tasnif yu def ci nit ñi wax ne nit ñi toujours ay niveau du ñu mosa a yëm mukk te loolu jàngale bu bu foor la ci ne bu la waxalee ne nit ñi ay classe lañ ay niveau lañ yow mi am yitte danga nga jéem a xam ci ban niveau nga toll waaye da nga jéem a sonn pour niveau ba ca topp nga jéem ca egg mu ne al aamatu ma al amal wal waasiluuna maa al axwaal wal aarifuuna maa allahi fi tafsili wal ijmal mu ne public bi mooy ñi gën ñi gën a bari ci nit ñi ñoom dañu sukkandiku ci jëf yi mu ne ñi egg ci yàlla dañu sukkandiku ci xaal yi luy sa xaali bakkan ndax seet na luy sa xaali xaali xol ndax gëm na luy sa xaali ruux ndax sell na luy sa xaal ak nit ñi ndax rafet na ak yooyu mu ne wal aarifuuna ñi xam yàlla nag maa allaahi ñoom ñi ngi ànd ak yàlla fi tafsili wal ijmal ci li li li li li li li mbëmbëstal ak li nga xam ne xëy na dañ ko détaillé noonu la waxee ne al iyaalu nisfaan nisfun li taab wa nisfun li raaxa wala raaxata illa wa qablaha taab wala taaba fi dunia illa baadahu raaxa mu nekk daal ay xikam yu ama am solo yoo xam ne boo koy jàng war cee wax sax dangay mujj doo xam fan ngay dale ak fan ngay jeexalee ñu jeexalee rek ci ay mulaaxazaat ñu gis ne hadihi alxikam tadullu ala siati rahmatillahi bi xalqihi thaniyan taxsiisullahi taala bililmi laduni liman yashaau min ibaadi ثالثا أن هذه الحكم من العلم اللدني الذي أولاه الله للشيخ أبي بكر المثنى رابعا أنها تدل على رسوخ قدمه في العلم وشموخ قامته في الولاية والصفاء xaamisan naha min al ayat dallati ala tamakkunihi fi ulumi allugati alarabiya walbalagati bi furuciha saadisan annaha annaha tuzhiru athara albi'a allati nasha'a fiha almuallif wallati tu'addu markaza ishcaa'in cilmi wa saqaafiyin wa macrifiyin yajurru daylaha ala alxawaadir saabican anna sheexa abaa bakrin misaalun xay li ulaa'ika alrijaal alladiina ashaara sheexu ilaa rifcati azwaaqihim wa shabbahahum بالشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي ثامنا حتمية الرجوع إلى التراث الثمين الذي خلفه لنا سلفنا الصالح تجميعا وتصديرا ودراسة وتطويرا تاسعا وأخيرا الدور الرائد لهذه الندوة في الجدية في نفض الغبار على الموروث العلمي والثقافي للفيضة التجانية الإبراهيمية وأخيرا أجدد شكري لأعضاء اللجنة ولسيد رئيس الجلسة ومنسقها wa shukran lakum ala husni listima wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh